wajalilaayi maskani tubaabaat misras mi abijaayi xayri manabaat jëmbat ay garab ci dëkk bi di loo xam ne nag xanaa day seen cër waaye bu yàgg la la waroon am sëriñ bi itam ku ne gis importance bi mu joxoon garab itti ji ko joxoon ci njaareem garab gi mujj a toog muy xay gi moo ko jëmbatal boppam ci loxoom moo ne am na ñu ko jëmbat de am na ñu ko soxat de waaye moo jógal boppam wutlu garab gi gas pax mi dugal ko ci biir jëmbat ko yëmu fa waaye di ko suuxatal boppam ci satlaam ba garab gi màgg ba mu toog ci. ca lay waxee ni yàgg diw ma jamono ndax garab gii de maa ko jëmbat ci sama loxol bopp rooseel ko sama bopp ba mu toll nii. booba mi ngi tàggoo. garab googu ci la toog ba ci yor-yor boobu mu ne ñokkit dugg ci biir ànd ña koy jël ci sallallahu alayhi wa ak àndandoo mu dem ci boromam muy xay googi moom nga dégg mu di ko junj naan baayaatuhu fil barri taxta shajara mooy fil barri ji mooy garab gii ci njëriñ fil baxri nag mooy mango ga woon ci maayomba mooy baayaatuhu fil baxri taxta shajara wal baxaru musbitun wa xawli fajara mooy kàccoor yi wër ko wet gu ne ak mu ne ci biir géej gi toog ci màngo googu dafa def lam daa def yonent bi di ko fekk mu def liggéey lam daa liggéey loolu ak mango la woon na liggéey boo xam ne am na ci biir kër gi muy eh, ay daac yi ñuy def nga xam ne ndigal yi sëriñ bi di joxe sëriñ bi jox leen ndigal ñuy liggéey waaye am na ci koo xam ni ci menuisier yi ci menuisier yi bi mu demee ba eh, war a summi yëram sonn dafa dindi mbu mi jël benn pont daaj ko ci genn garab bi mu ko daajee ci garab gi wékk ci yéreem bi mu ko daajee rek sëñ bi daa tëju woon waaye sëñ bi def ni kàcce bunt bi tijji ko daan ni ko garab garab gii nga daaj pont bi de dafa mel ni ci sama yaram bi nga ko daaj dindi ko loolu it soññee la wone euh, fonk gi mu fonk garab Touba firi bi boo ko xoolee dañuy wax ni garab la gu nekk ci biir àjjana garab la goo xam ni it kenn ku ci nekk foo nekk ci biir àjjana car yi yegg si na ca fa nga ne ngay xéewalu ci xéewali àjjana yi muy jóge ci garab gi loolu misaal la ci tuubaa man ñun ñépp ñu fonkaat garab suñ dëkk bi gis nañ bu baax a baax tàngoor wi nga xam ne am na fi te lépp loo xam ni day wàññi tàngoor yi dara jiituwu ci garab garab njariñ yi bari na wax nañ ko waxati ko waaye benn rek buñ ko jëlee mu mu doy misaal mooy tey jii boo jëmbatoon garab ba ci say sëta sëtaat kenn ku ci ne yiw bi dala fay fekk ndax ku ci jariñu yiw fekk la fa nga nekk kon loolu dong war naa tax ñu gën a fonk garab su ndëkk bi nag gis nañ ni dese nañoo fonk garab bu ñu xoolee ci dëkk yi nga xam ne ñoo ñu gën a màgg ñoo ñu gën a mag da ngay gis ni ni ngay defee sa plan noonu ngay de sóoraalee garab dangay génne budget boo xam ne da nga koy def ci wàllu garab ngir mu àndandoo ak tabax bi jóg fii nag parce que dafay mel ni sax am na ci ñoo xam ne fii mayewuñu ay garab du ñu jëli garab te nañu xam nañu bàyyi xel bu baax a baax lépp loo xam ni ñu ngi koy def ci dëkk bi mënuñu koo ñàkk booleek booleeg ak garab garab liñ ciy mën a jariñoo bari na. dëkk yëpp ñi nga xam ne ñi ngi xalaatal ëllëg ñi ngi dox ak gëstu ak liggéey jëm ci fexe nañu defe ba garab amaat ndax garab mooy jumtuwaay bi nga xam ne. moo mën a delloo si li ñuy wax environnement bu jaar yoon ndax euh, ku nekk xam na ne yàlla bi mu wàccee doomu adama ci kaw suuf da ko booleeg mbir yu baree bari yoo xam ne lenn lu ci nekk rek amal na ko njariñ lenn lu ne loo gis ci kaw suuf ak loo ko xeeb-xeeb amal na njariñ doomu aadama tàmbalee ko ci rabi àll yi nga xam ne wala rabi kër yi nga xam ne ñoom moom la ñu nekkal donte gunóor la donte weñ la donte sax bu ndaw la wuy dem ak yu mel noonu léeg-léeg mën na laa déranger mën na laa sonal waaye boo ko toppee ba ci biir am na benn njariñ bu mu amal loolu moo tax nag ñu war a taxaw ci amalaat garab damay nettali benn euh, anecdote maanaam benn nettali boo xam ne dama ko mas a seetaan ci télé ci benn dëkk ci réewi Inde yi ñu toog ba mu yàgg rek ñu gis ne xaj yi nga xam ne dañoo amee feebaru ràmm defe naa feebaru rase lañ koy wax euh, ñu gis ne xaj yooyu dañoo gën a bari dañu dugg ci dëkk bi di matt nit ñi rek scientifique yi borom xam-xam yi bi ñu koy gëstu dañoo delluwaat ci àll bi xool. Euh, médd yi rab yu dee yi nga xam ne ci la xaj yi di lekk lan moo ci nekk bi biñ ko gëstoo dañoo gis ne tan yi ci seen bopp bu médd amee ñoom ñoo ci war a jiitu di ko lekk buñ koy lekk am na luñ ciy dindee loo xam ne dafay génnee microbe bi jox feebar yooyu xaj yi te tan yi daan def loolu tan dañoo feebar nga ne bi ñu bëggee problème bi dañoo dem faj tan yi tan yi wér ñëw di lekk loolu ci médd mi xaj yi ñoom it bu ñu lekkatee euh, ci loolu ñu daan lekk feebar bi leen ci daan toppee dañ jàmm doogu mën a am nga gis chaîne boobu ni mu guddee ci ngay xamee xerañu suñu borom ci lëkkale gi mu lëkkale mbir yi ak dundu doomu aadama kon doomu adama ci boppam ab liggéeyam moo war a fexe di góorgóorlu bay sàmm li nga xam ne moom la ko suñu borom booleel ci kaw suuf ndax boo ko bu ko deful rek bu yàqu gi ñëwee euh, lépp dafay dellusiwaat ci kaw moom doomu adama te moom la yàlla wàccee ci kaw suuf def ko ab xalifa mu war a représenter suñu borom taxaw ci suuf si dundal ko se ba yi fi nekk yépp lu ci nekk tegu ci yoon. ci biir loolu nag ci xalaat yu yu yu kawe yu xóot yooyu bokk na ci xalaat yi nga xam ne moo tax Touba ca kanam jóg ne nañu fexe ba jëmbat garab ci dëkk bi ndax seetlu nañ bu baax a baax ne tàngoor yu metti na te boo demee ci àdduna bi da nga dem léeg-léeg dëkk boo xam ne boo ko jubsee rek àggagoo ci dëkk bi waaye boo ko jubsee rek danga nga sentir ngelaw lu fay jóge di ñëw ci yow loo xam ne dangay xam ne dëkk bi naat gu mu naat moo sabab ngay sentir brise bii mu mel ne boo jubee géej li ngay yëg lu ko xaw a nuru da nga ko yëg léeg-léeg boo demee ci dëkk yi même Sénégal gi am na fa boori Thiès googu am na fa dëkk boo xam ne man mas naa faa dem boo demee ba jub ko lu mel noonu ngay yëg euh, tàngooru metti wi mbooya mi poussière bu bari bi te ñu xam ne bari na ci dëkk bi te wet googu bokk ci développement ndax ni ñu ko xamee tamit développement chaîne la lu ci nekk dafa laal morom ja bu ñu seetloo fi mu ne conséquence bi nga xam ne manque garab mi ngi koy jur conséquence bi nga xam ne mi ngi juddoo ci tàngoor wu nga xam ne manque garab a ko jur poussière bi nga xam ne manque garab a ko jur li cay juddoo ci ay xeeti feebar yooyu li ci doomu aadama yi di ñàkk ci ordonnance loolu buñ ko jëfandikoo woon ci feneen mu yokk ci seen wàllu développement loolu lu ñuy tënk tënk bu gàtt la rek bu ñuy laytaayale li nga xam ne ñoo ngi koy wax jëmee ko ci njariñal garab kon muy loo xam ne ku nekk ci ñun war nga ko def yitte def ci pasteef liggéey ci fexe ba dëkk bi doon dëkk bu naat ndax dëkk boo xam ne kat borom mi ngi ko tuddee Touba te Touba di tekki ak garab bu nekk ca àjjana ku ñëw ci dëkk bi war naa Touba war na laa misaal bu ma waxul mu misaale naataay naataange àjjana tamit war na laa misaal luy tax nga xam ne dëgg dëgg dëkk bi moom dëkk bu ñu waajal la ci wet yépp ci ne ko boroom bëggee woon ba ñaanee woon ko suñu borom ci mat la Matlabul Fawzayni te ñu takktoo doon ay taalibeem war a wane jamono bu nekk ne Serigne Touba amul morom ci domaine yépp lu bari lu ñuy jariñoo ci fii ñu toll nii garab da ca bokk kon nañu gën a fonkaat garab yi ndigal li ci sëriñ bi joxe ñun ñëpp nañu génn maase àndandoo. ak tubaa ca kanam li nga xam ne noonu la ñuy liggéeyee ci garab yi ñun ñëpp ñu maase ànd ko ak ñoom. bokk na ci yi nga xam ne war naa tax kenn ku nekk ci ñun def yitte ci jëmbat garab ci dëkk bi bi ci jiitu te boroom xam-xam yëpp wax ko mooy xam nañ ne garab moom mooy tax taw di am dëkk bërëb bu la gën a naat gën laa bari garab moo la ëpp nawet moo la ëpp taw. Euh, loolu firnde ji du sori boo jëmee ci bët saalumu réew mi jëm boori Guinée Conakry Guinée Bissau wala Casamance gi nga xam ne ci biir Sénégal la bokk jëm boori Kolda bu nawet dee tàmbali ñoo ñuy njëkk a tàmbali la ab nawet ñun ñoo ñu koy mujjele te la fay taw du taw fii ña fa ña fay dem xam nañ ko li ko sabab mooy dëkk boobu boor yooyu dafa naat garab yi dañoo bari boo tiimee Sénégal di xool carte Sénégal di seetlu bu baax di nga gis ne désert bi. ak euh, wowaay bi nga xam ne mooy bàyyi ko ci bët gànnaaru réew mi ba ba ngay àgg Murtani avancé na te day gën a dox di ñëw loolu moo tax am ci suñu njiiti réew yi fi jiitu woon ñu xalaatoon ne nañu def grande muraille verte pour bloquer maanaam te euh, désert boobu mboye moom nga xam ne toujours mi ngi bàyyi ko ci bët gànnaaru réew mi di dugg si ci biir réew mi te xam ngeen ne Touba ni mu situé woo daanaka dafay xaw a nekk ci biir centre bi ci côté boobu bu fekkee da ngaa jógee ci wetuk Saalum gi wala wetuk gànnaar gi foo ci jógee da nga gis ne Touba dafa xaw a nekk ci digg bi loolu moo tax nag waa Touba war a takkatoo liggéey ci dëkk bi ci wàllu garab ba nga xam ne ngelaw loolu mbooyee moom te buñ ci liggéeyee sax du yamate ci Touba dong ndax dëkk yi wër Touba ba ba ngay dem Daaru Musti diggante Touba ak Daaru Musti ba ba ngay dem kàddu ballooji bu la neexee ba ba ngay dem euh, euh, ba ba ngay dem fii ba ba ngay dem Kolobaan euh, dem Kayel ba ba ngay dem Ngaabu boo ko rombee dëkk yooyu yëpp dañooy bokk ci projet bi ñëpp jàpp ci njëmbatum garab bi bu ko defee nag mu nekk benn boo ko tiimee am benn bul boo xam ne am benn kutumbal boo xam ne da ngay gis ne fees na dale ki garab mu doon poumon ci biir réew mi ndax Touba ci digg réew mi la nekk. leneen leelu xam ni it mat naa soññee ci dëkk bi mooy ak jur goo xam ne dafay mel ni dangay bàyyi sa jur rek muy yàq loolu it ak tooñ lay nuru képp koo xam ne am nga sa jur war nga leen a mën a téye noo xam ne dëkk bi kat day màgg te dëkk buy màgg dañuy ànd ak moom màgg bokkut bu njëkk dangay am sa jur rek sànni mu yàq. di yàq am na ci loo xam ne soo koy def yaa ngi tooñ te ñun ñëpp dañoo ñëw ci dëkk bi ngir sàkku ci ngërëmal sëriñ bi nañu sàmmoonteeg jëmbat yi ñuy def bari na ay yoon yoo xam ni lu mel ni yoonu Mbàkke bi def nañ fi ay yoon yoon ay garab waaye saa suñ fi defee garab dangay gis ni garab yi day yàqu te lu ci ëpp li ko yàq lenn li nit ñi la ci euh, ni ñuy ñàkk fonke garab di ko di ko jëfandikoo nu leen neex lenn li jur gi la jur gi it nit ñoo leen moom kon ñun ñëpp soññe bi dañuy maase àndandoo ànd ak ñi nga xam ne ñooy liggéey garab yi lépp loo xam ne dëppoowul ak euh, garab ñu fexe bañ loolu. Sëriñ Mountakha Mbacké mi nga xam ne tey mooy yilif yoonu murit ñu koy ñaanal mu yàgg fi loolu te wér te ay yéenam yépp suñu borom kàttanal ko dëgëral ko ci barke borom Touba ba mu defee ko na ma ko bëggee wax na ne garab moom gisul lu ko ëpp njariñ ci dëkk bi jox na ci Touba ca kanam ndigal ngir ñu fas yéenee ànd ak mbokki taalibe yépp fexe ba njëmbatum garab mi ñu taxaw ci def ko yitte soppi xar kanamu dëkk bi ci anam goo xam ne anam gu naat lay doon goo xam ne ku fi dugg yëg ne dëkk bi moom soppiku na. xam nañ ne lépp lu doon bëgg Sëñ Muntaxa rek mooy bëgg Sëriñ Tuubaa muy fexe ba dëkk bi am ay garab te rawatina garab yooyu doon it garab yoo xam ne yuy jëmmal dëkk bi la di ko rafetal waaye day doon it garab yoo xam ne yu ñuy amal njariñ la ndax am na ci loo xam ne boroom xam-xam yi wax nañ ko muy garab fu mu bëri rek. taw dafay bëri waaye garab it fu mu bëri naataangi dafay bëri waaye ngelaw li nga xam ne dañ koy noyyi sax day gën a set waaye loolu yëpp rek bu amee it ñun ñi fàttaliku ne dañ ci am li wolof di wax ne benn xeer jam ñaari picc ndax buñ ko ci defee danañ ci am suñu njariñ ci àdduna waaye danañ ci jëfe ndigalal sëriñ bi tey ñaan mu tase ak ak bëggam kon daal ñi ngi soññ bépp taalibe boo xam ne yaa ngi yëngu ci Touba ca kanam rawatina ñi nga xam ne dama bokk ñoom diaspora bi nga xam ne ñoom ñooy samay jëwrin kon képp koo xam ne yaa ngi ci bitim réew di fa daan sa doole te yëngu ci Touba ca kanam wala Touba ca kanam itteel la ñi ngi sàkku di ñaan di la yalwaan nga bokk ci liggéeyu Serigne Touba bi muy njëmbat garab yi waaye loolu nag suñ ko waxee dina am ñoo xam ne ñoo gën a gën a moom woote boobu mooy ñan mooy ñi nga xam ne dañoo am ay li ñuy wax màkkaan ci biir Touba ñi nga xam ne dañoo am kër Touba daal ñoo ñu defe naa ne lii ñoom la gën a gën a itteel waaye nag képp koo xam ne nekk nga ci bitte it te am yéene soo ko mënul it na nga wut garab jox ko ku dëkk Touba mu jëmbat ko biir Touba lépp lu masaan jógit wax dëgg yàlla Europe day bokk ci ñi ci gën a jàmbaar kon jëmbatu garab mi ñi dëkk Sénégal rawatina Touba te féete Europe nañ ci jàpp lépp lu ñu man dëkk bi ay ay ay soxna yi fi nekk bari nañ te farlu nañ farlu nañ farlu boo xam ne lépp lu ñu leen woo dañ cay ñëw ba ñoo cay man sax ñooñu nag lañuy woo ci garab dañoo bëgg bis na ko tey ñépp jublu ci am garab kenn ku nekk garab gi ngay am na ko am ci sa ci sa ci sa kër ak sa buntu kër nga def ci yitte yoo xam ne yow ci sa bopp ki nga xamante ne mooy jigéen ji nekk ci kër gi ak jigéen ñi ñu ne ci kër gi ndax Tuubaa baaxoowul jenn jigéen ci kër waaye jigéen ñi ne ci kër gi nañ jël kenn ku nekk genn garab nga séq ko ak sa njaboot su fekkee ne kenn moo ne ci kër gi mu jël garab gii séq ko ak ak njabootam wala ñaari garab wala ñetti garab ñu taxawee ko su kenn ku nekk defee garab ci sa kër ak sa buntu kër taxawu ko taxawu na ngay taxawoo sa njaboot na ngay sàmmee sa njaboot boo xëyee ba xam julli ba xam eh, xëy nañ jàngi ba xam def nañ lañ war a def ba xam lekk nañ nga di ko def ci garab googu soo ko ci defee garab gi dina màgg comme njaboot gi nga xamante ne moo nekk ci kër gi te ni ñuy jubbantee njaboot noonu la ñu jubbantee garab garab boo ko jëmbatee bàyyi ko moo nga jur doom wàcc ko ñooyam te itam defe naa ne bu dul woon sax tuyaaba ji nga xam ne moom lañ ciy séntu muy ndigalu Sëriñ Tuubaa ko def ku nekk séntu nga ca tuyaaba euh, njariñ li moom dafa dafa dafa dafa am ci ci saayir si mooy danga koy jariñoo da ngay toog ci kër gi dangay ngay ci doom yi da nga ci euh, sa njaboot dañ ciy terlu kon loolu rek jar na sàmm garab na ci ñëpp jublu nañ ci jublu ba nga xamante ne dëkk bii tey suñu soxlaa mango fi lañ koy wute suñ soxlaa darkase fi lañ koy wute suñ soxlaa orange ak pomme ak lépp café guraak man démb rek am na ku ne moo xam ne ma mën na maa am garabu gura mën naa la ko defaral ba mu baax sa kër kon loolu wax dëgg yàlla te it du yitte rek la du alal ju bari du dara yitte rek la nañ ko jox yitte sama mbokki jigéen ñi nag maa ngi leen di ñaan liñ daan def lu dikk ñu man ca njëmbat lii nga xamante ne war nañ koo jëmbat Touba Ville Verte ànd ko Touba ca kanam muy le 8 septembre bi jigéen ñi ko xëy nanga nga takk sa ndigg sa kër xëy si ci yoon bi nga xam ne moo jógee Mbàkke jëm si Touba tàmbale ci garas bu njëkk bi ba ca euh, mairie ba ñu taxaw ko ba mu mat sëkk noonu ko taxawee ba mu mat sëkk su ëllëgee noonu la ñuy àndewaat demaat ci beneen koñ ak beneen mbedd ak fenn foo xamante ne garab jekk na fa rek fas nañ ko fa yenee def ci kàttanu yàlla ak ndigalu Serigne Touba jàpp naa ne dëkk bi mango bokk na ci garab yi fi gën a nangu. suuf si nangu na ko ndox mu ndox mu nangu na ndox mu naqari ma gis ne mango moomu barkeelu la ci murit bu ne war ko mën a ndax juróom at yu manqué tuuti yi sëñ ci géej gi sa toog ci garab gudul mango ma gis ne ko murit yi waroon nañoo mën a barkeeloo murit bu ne jaayante ci sa kër def genn garabu mango ci buntu kër ga même boo tukki sa njaboot mën nañ la koy suuxatal te di ko sàmm bu fekkee nag dëkk bépp maase nañ def ko dëkk bépp day ànd verte rafet mel ni mu war a mel te loolu yaakaar naa du lu jafe kenn ku ne jëndug mango def ko ci sa biir kër sa njaboot di la ci jàppale di la ko soxatal nga jàpp ko liggéeyal Sëriñ Tuubaa daan la jëriñ fii daan la jëriñ fële te bokk na ci liy dimbale sëriñ bi ba dëkk mel ni mu ay ca murit ay ca murit ay ca murit. wajalilaayi. yaa bi jaayi xayri ca kanam saa su ne rek muy wone pas-pas ak yéene ji nga xamante ne bi am na ko ci luy suq suqali lépp lu jëm ci dëkk bu sell bi di Touba ba tax na mi ngi leen di yëgal ne jot nañu ndigal ci xalif général ku lu murid mun Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg lool te ànd ak weer jëm ci jëmbat ay garab ci biir dëkk bu sell bii di Touba muy projet bu am solo boo xamante ne bi ñi ngi ko dippee naatal Touba. Serigne bi jox na ndigal taalibe bi yëpp képp ko mën nga ànd ko ñoom. ci lépp loo ci man ci sa kattan sa alal ak si jëf ak ànd ñoom ci liggéey bi ca tàmbali ba ba ca mujj ga ndax liggéey la bu rëy boo xam ne kat ni ñu ko bëggee bu ñu amee incha allah képp ku duggati ci duggati ci dëkk bi rek da nga xam ne soppiku na. tàmbali liggéey bi nag mbokk yi dimanche ji ñu mën lay doon di juróom-ñetti fan ci weeru septembre ci diggante ñaari tali yi nga xamante ne bi ñoo bàyyikoo ci rond bi nekk booy dugg Mbàkke ba agsi ci garage Dakar bu njëkk ba ba tax na nag mbokk yi Touba ca kanam mi ngi ciy woo mbooleem jullit yi fépp fu ñu mën a nekk ci biir réewum Sénégal ak bitim réew rawatina ci dëkk bu sell bii di Touba ak li ko wër di ci tàllal loxo mbooleem kilifa diine yi ngànk yoonu murit waaye mbooleem autorité étatique yi waaye mbooleem kuréel yi nga xamante ne bi ñooy yëngu ci wàllu développement moo xam muy association yi GIE yi ONG yi rawatina ñi nga xamante ne bii ñoo di daayira yi muy projet naatal Touba. lu def ci yitte ju mat sëkk waaye loolu moom amul lenn lu ñuy jëm ci dëkk bi doo gën a yitteel ak Touba ca kanam yàlla nañu sëriñ bi boole ñu bokk ci ñuy jëmale dëkk bu sell bii di Touba ca kanam.